retrouve ñu ngi àndandoo ak yéen ba 11h ci télévision Futur Média 9h04 mooy doog a jot ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di ñaanal mercredi bu neex tey tombeek àllarba enfin 9 mars jóge nañu ci mars mais teewul euh, jigéen ñi nee nañu dañuy àggali euh, pour waxtaanee jigéen ñeek seeni i mbir euh, moo tax parmi nous comme hier aujourd'hui encore nous parlons euh, de ces collaborations avec les femmes Chiara. Voilà, les femmes en tant que sujet. et protagoniste de développement socio-économique au Sénégal et pas seulement. Comme disait la romancière Vicky Baum, elle disait euh, le pire sentiment que l'on puisse offrir à une femme, c'est la pitié. Mm. Donc on change vraiment euh, des de concept et on part de contrôle, mm. participation, émancipation, conscience civique. Mm -hmm. À partir de cela, tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce que c'est l'empowerment. Oui, Donc, euh, women au voilà, Sénégal. des femmes. Euh, l'empowerment, c'est un processus de croissance de l'individu ou d'un groupe. On fait prendre conscience à une personne ou un groupe de personnes des ressources et du potentiel qu'ils ont et comment arriver à exploiter ces ressources et ces potentiels. Mm c'est le programme intégré de développement économique et social financé par la coopération italienne et piloté par le ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin au Sénégal, mm -hmm. euh, à se euh, des femmes et des jeunes mm dans des contextes euh, défavorisés et ils essayent de favoriser le développement développement socio-économique, comme je disais euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Je vais euh, vous montrer un petit extrait euh, d'un reportage qui a été fait par la coopération italienne qui parle de ça. Et après, on, je vous présenterai l'invité qui est avec nous aujourd'hui. Donne per noi sono le protagoniste dei nostri interventi di sviluppo. Les femmes sont pour nous les vraies protagonistes de nos projets de développement parce qu'elles sont les vrais sujets de changement économique et social. Et pour nous, ça, c'est contribuer à la sécurité alimentaire. Voilà, donc un reportage réalisé euh, par, les équipes de la, coopération, coopération, italienne, c'est ça, tellement de collaboration oui. euh, avec euh, ces euh, ambassades ou ces pays euh, qui sont au Sénégal. oui. Pardon, si, si je te coupe la parole, c'est mm. bien aussi euh, de démontrer ce qui est en train de se développer par rapport en général à la coopération internationale. Mm. Et euh, c'est un extrait d'un reportage que les gens peuvent euh, trouver aussi sur YouTube. Et, pour, Et sur <laughs> citer aussi l'expert de genre de la coopération italienne qui est intervenu sur les reportages, Giuliana Serra. Donc l'Italie vraiment a visé Euh, beaucoup sur l'empowerment des femmes au Sénégal. Mm. Et euh, l'objectif, c'est de promouvoir l'accès aux ressources économiques et sociales mm-hmm. et euh, aider à la promotion de l'éducation mm. et à la promotion des droits et surtout à la participation active des femmes. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec nous, la coordinatrice du PIDES, Madame Diop, elle est là avec nous. Et je voulais partir pour une première question, Madame Diop. C'est le rôle de la femme Parce que souvent, on sous-estime les rôles de la femme dans une société. Donc, euh, euh, c'est quoi les rôles de la femme dans la société sénégalaise oui, euh, Je voudrais d'abord euh, saisir l'occasion pour euh, féliciter et souhaiter bonne fête parce que, comme vous le savez, hier, c'était la grande fête des femmes, mmh. la journée internationale de la femme, mmh. qui a été célébrée par euh, le ministère de la femme, de la famille et de l'enfance euh, au niveau du Grand Théâtre où nous avons même refusé du monde et profité de cette occasion justement pour féliciter Madame le ministre qui a pu organiser cette rencontre qui a permis aux acteurs de tout bords de partager et d'échanger à travers des panels sur des thématiques clés liées à le, aux objectifs de développement durable, euh, mais aussi pour les aspects liés à l'équité et l'égalité de genre. dans l'après-midi nous avons pu avoir euh, toute cette euh, euh, mobilisation sociale dont vous avez eu certainement l'écho. Voilà. Donc, Madame Diop, le rôle de la femme, c'est quoi l'importance de la femme dans la société sénégalaise? Voilà, donc euh, je voudrais dire aussi que le ministère toujours de la femme a réfléchi depuis euh, les débuts de mise en œuvre des premiers programmes de lutte contre la pauvreté. et à essayer de procéder à une, euh, ce qu'on appelle une capitalisation des expériences pour arriver à identifier le rôle central de la femme comme rôle mm -hmm. d'amortisseur social. Donc les femmes ne sont pas considérées comme porteurs de besoins, mais plutôt comme porteurs de potentialités. Mm Et l'idée était de valoriser les savoirs locaux, mais aussi d'inscrire les femmes dans une dynamique de développement économique mais accompagné en cela par tout des beaucoup d'actions intégrées de sociaux pour de, sociales plutôt pour leur permettre euh, définitivement de sortir de leur vulnérabilité et de devenir réellement autonomes. Voilà. Donc c'est pour cette raison que nous parlons plus d'autonomisation socio-économique parce que pour cela, il faut une fois qu'on a reconnu leur rôle central et leur euh, potentiel productif, il s'agit maintenant dans un second temps d'essayer de libérer ce potentiel en accompagnant leurs, accompagnant. Voilà, parce que vous intégrée. avez dit une chose qui est essentielle selon moi. Voir certaines catégories de personnes n'est pas comme des porteurs de besoins, mais des porteurs de potentialités. Donc euh, voilà. Et euh, dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu au public qui nous suit, euh, c'est quoi euh, les projets euh, PIDES voilà. le, projet, le programme intégré de développement économique et comme vous le savez, est mise en place euh, par le ministère de la Femme en partenariat avec euh, la coopération italienne et est mis en, en œuvre depuis mai 2012. Donc c'est un programme qui utilise une approche conceptuelle particulière, mais qui est parti, comme je l'ai dit tantôt, d'un long processus de capitalisation du ministère de la Femme qui a essayé de changer de paradigme par rapport à tout le processus de lutte contre la pauvreté pour amener les finalités de programme de lutte contre la pauvreté et leur donner une mission de protection sociale. Mais l'Italie a opté pour valoriser le potentiel créateur des groupes cibles en favorisant l'autonomisation socio-économique. Donc nous abordons cette protection sociale par l'autonomisation socio-économique des groupes cibles, particulièrement les femmes et les jeunes. mais dans une perspective de développement économique local et une prise en compte du genre. Est-ce que vous pouvez faire des exemples concrets de ce qui a été fait? Quel type de projets ont été faits avec les femmes qui sont les bénéficiaires, les et les jeunes, il faut dire. Mm -hmm. Donc vous pouvez nous faire des exemples? Oui, co concrètement, je voudrais partager avec vous l'expérience qui a été déroulée sur le terrain. Nous avons d'abord, dans un premier temps, fait ce qu'on a appelé ciblage des zones d'intervention. Le PIDES étant, comme vous le savez, une expérience pilote qui voulait euh, expérimenter une approche conceptuelle particulière. Et nous avons ciblé, selon des critères liés à la vulnérabilité sociale et économique, quatre communes dans chaque région d'intervention, que sont Dakar et Kaolack. Et nous avons poursuivi le processus en faisant ce qu'on appelle diagnostic participatif. Et le diagnostic participatif n'est rien d'autre que d'essayer de mettre en synergie tous les acteurs du territoire, mais particulièrement les femmes et les jeunes, leur donner la parole pour qu'elles puissent partir de leurs de leurs problèmes et identifier les actions qui allaient leur permettre de sortir les leurs propres solutions. Mmh. Et en relation avec euh, les services techniques déconcentrés du ministère de la Femme, le développement communautaire, mais les élus locaux, puisqu'on s'inscrit dans un cadre de développement économique local. mais de l'acte la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Mmh. Donc, donc, le... Euh, donc, mhm. pardon si je vous coupe la parole, c'est de créer des activités qui... Donc, oui, je sais, tu m'as vu, c'est le problème de euh, euh, activités qui mhm. puissent créer à leur tour euh, des, revenus pour ces femmes. Donc aider ces femmes à devenir indépendantes Indépendant. au niveau économique, n'est-ce pas? Oui, nous avons pu, après le diagnostic dont je parle, avoir un plan de travail, un plan d'action régional pour bien maîtriser notre situation de référence parce qu'on fait toujours critique qu'on a des problèmes de suivi évaluation dans les différents dans les projets et programmes. Donc nous avons en amont, nous nous sommes inscrits dans cette logique gestion axée sur les résultats. Mais le contenu essentiel de ces plans d'action, c'est l'autonomisation économique à travers des lignes de crédit mais conduite de façon okay. euh, participative avec les élus locaux les populations les acteurs porteurs de développement communautaire les services techniques déconcentrés qui accompagnent gratuitement les populations dans l'élaboration de leurs projets mm. et tout l'accompagnement et les nous avons élaboré aussi une stratégie d'intervention de proximité avec les mutuelles partenaires où nous avons mis pour un coût montant global de 675 000 millions de francs CFA. Mhm. dans les différentes mutuelles pour soutenir l'autonomisation économique. Et nous avons accompagné, essayé de concilier cette dimension économique et sociale en mettant en place des boutiques de droit. les boutiques de droit, voilà, mhm. voilà. Mhm. auxquelles les femmes puissent, euh, pour, peuvent se rendre pour, pour euh, discuter de leurs problèmes, avoir des services juridiques gratuits. en partenariat avec l'association on le rappelle, des juristes, On rappelle que c'est les boutiques de droit, pour mhm. les gens qui veulent chercher. Et euh, je pense que pour, pour terminer un tout petit peu, une femme qui a envie de se rapprocher de ce qui a été fait par les e ou qui a envie de trouver ou accéder à ces projets de soutien aussi, comment elle peut faire Pour l'instant, je voudrais dire que nous sommes dans huit communes de la région de, de, des deux régions, comme je l'avais dit tantôt. Nous sommes à Cambérène dans le département de Dakar, mm -hmm. euh, Yen pour Rufisque, Medina Gounas pour euh, euh et Pekin Guinawaï Sud. Donc, vous pouvez vous rapprocher des services techniques du développement communautaire. Mhm. Et nous, avons, nous, nous, essayons de promouvoir la bonne gouvernance et la participation. Donc, nous développons l'approche quartier. Mmh. Et les conseils de quartier sont accompagnés. Mmh. Donc, le PIDES, euh, certainement que je n'aurai pas l'occasion de vraiment m'étendre du du temps qui m'est imparti. Mmh. Mais je voudrais seulement dire que le PIDES aussi s'inscrit dans cette dynamique de développement économique local, mais aussi dans l'accompagnement des élus locaux et de tous les acteurs de manière globale le renforcement de capacité se fait depuis les acteurs directs, femmes et jeunes, en pensant par les services techniques déconcentrés pour qu'ils puissent assurer l'élaboration des projets et leur suivi, tout l'accompagnement, euh, et les élus, les maires et élus locaux, pour leur permettre d'intégrer ces dimensions genre et protection sociale dans tous leurs outils de planification. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des conseils de quartier forts qui peuvent euh, promouvoir l'auto le, le, le, le rôle voilà de citoyen donc d'acteurs porteurs de potentialité. Ce qu'on disait, on se reconnecte à ce qu'on disait euh, au tout début pour ce qui concernait l'empowerment euh, Empower. des mmh. femmes. Donc mmh. c'est l'autodétermination. Pour tout ce qu'ils veulent chercher, aussi sur YouTube, vous pouvez trouver euh, des reportages sur les boutiques de droits. Donc vous pouvez voir ce qui a été fait avec des expériences des bénéficiaires. Et pour tous les gens, vous pouvez aussi voilà, contacter la coopération italienne voilà. et demander du PIDES. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Madame Diop. Merci. merci beaucoup euh, madame euh, Ba ay Ayo Aïssatou Diop Ba euh, du programme de développement local PIDES bien expliqué par Kiara euh, y a tellement de choses yu fi am yoo xamante ni askan wi xamuñu ko mais def ci baax itam ñu koy xam yu mel ni euh, collaboration yu am solo yu nii en tout cas merci euh, je reste convaincu que vous reviendrez prochainement pour qu'on parle encore de ce que le ministère fait pour pour les femmes parce que defe naa am na solo ñu ngi leen di sargalaat ci démb taxawaay bi nga xamee ne ministère bi amal na ko jëmoon ci bi ñu jagleel jigéen d'être passé nous voir merci jërëjëf Chiara je rappelle que entretien bi mën ngeen ko amaat ci suñu site internet www.igfm.sn wala sax ci youtube euh, slash tfm ou bien ci page officielle bu Chiara Ndiaye Géwél merci beaucoup mooy doog a jot way bi ñuy déglu ci suuf man daf maa musa neex ndeysaan Ismaël Lo xaw lu tax defu ko clip wala def na ko clip bii nii sappa dëgg mbooloo mbooloo rek mooy doole kon lu baax la man gëm na ni dañu wati booloo moo gën ci mim réew kon dana sappa dëggin dañ joxante loxo bii de mën naa ko da soxor mën naa ko est-ce que mën ngeen indiwaat euh, début way bi eh c'est un très beau titre c'est un bi on accueille en même temps Niga Dia qui nous rejoint tout de suite euh, pour parler de son Solma Show le euh, le 12 mars écoutez Ismaël Lo bi c'est un très beau titre way bu neex la et pourtant ñu ko aw ah c'est pas des Sénégalaises ah oui c'est ma qui a fait les chœurs Queen Eteme man aw ma marraine sénégalaise de loolu <laughs> kon lu baax la ah ñëw toog fi waa ni nga jaa taxawal foofu toogat comme yow lu la neex ngay def maay sa rak yow lu la neex ngay def ci plateau bu ngeen gisee di ngeen gën a am doole xalaat na mu ngeen gisee di ngeen tànn ko kon lu baax la teneen ten en fait j'attends les chœurs ah balaa may arrêté chœuru woy bi lay xaar ten ten ten si je vous torture ngeen baal ma tout temps ten ten yaa ngi bay sa waar jigéen nga ëpp doole ndax gëm naa ni mbooloo mbooloo rek moo di doole loolu baax déglu si déglul ah woy woy bi ñëw allez on écoute non maa ngi wax déglul je te jure mën naa ko bon oh. jàmbaar daal ñu ne excité excité dama feebar tey ah, dégg fi féewaloo li ma gënal man déggal foofu bokk ndax ndax gëm mbooloo mbooloo rekk moo di doole kon lu baax déglu fi <laughs> man de xamul ma lu mu mel ni intellectuel déglul way wi ci nga way wi ci nga wooy bi dafa neex déglu iñaan ngeen torop bañ ngeen Ismaïla Lo torop yéen da ngeen bañ Ismaïla Lo yéen Ismaïla bañ ak ni mu mënee woy papaay Marilo <laughs> xamoo ko dégg tant que bi ñëwul du ma arrêté j'ai pas arrêté avec la chanson écoutez encore déggal fi mais musique bi dafa gudd ka mais c'est un très beau si. eh waay te attends tu connais. gëgë gëgë gëgë te dafa feebar de. ci réew mi. yaa xam li ma gënal man. daa bokk ndax ndax gëm na ni mbooloo booloo rek moo di doole. voilà c'est là écoute man gëm naa ni duñu wër booloo boo gën ci biir réew kon nañ joxante loxo man gëm naa ni duñu wër booloo boo gën ci biir réew kon nañ joxante loxo xaar ah, écoute ici yee yéegi yee Alfi da ngaa sappa déggi <laughs> que nous que nous que nous apprécions tous ah. Euh, on le salue oui il regarde tous les matins euh, ça c'est un très beau titre euh, merci à la prod exactement 9h24 minutes euh, Niga Dia nous a rejoint Niga Dia suñu xarit euh, merci. Euh, c'est un jeune entrepreneur pourquoi parce que euh, depuis l'année dernière euh, dafa initier benn événement boo xamante ni moom la ñu tuddee Solma Show euh, en plus c'est un créateur de mode euh, ñu ngi jëm nag ci deuxième édition Kaay Solma Show le mars le 12 mars c'est là hein? c'est samedi ce samedi là là là là là là mm donc ñëpp a ngi koy préparé d'abord ñu bàyyi la nga nuyoo ak ak sama date la man le 12 mars kay Solma Show ni nga ñu ngi lay nuyu waaw maa leen di fay euh, di nuyu téléspectateur TFM yëpp di ñaanal suma yaay bu baax a baax a baax a baax di ñaanal suñu papa di ñaanal suñu kilifa diine yëpp donc euh, comme ni nga ko waxee date bi sa date la. ah oui parce que yow yaay sol ma euh, je crois que tey def nga ci liggéey bu rëy bu ñu accès fii mm-hmm. daaw première édition bi yaa ko présenté. Mm-hmm. deuxième édition bi si yaa koy présenté waat. déggal lool donc. Euh... Pape Solma. eh ku ma bëgg a gis na nga fay ñëwaat. mais mais mais il le dit nee na même si je m'habille autrement c'est du Solma. même tey je suis Solma. donte waa ji ma dóor mooy ki xàcce woon depuis avant ma naissance te ba léegi dóoragul alaaji Ralph <laughs> ba mu xàccee ma tey dóor nii rek la nekk. <laughs> dóoragul alaaji Ralph maam daal <laughs> c'était avant mon père. Mhm. nii la def ba léegi dóoragul moom nii rek. oui euh, euh, lu tax lan mooy lan mooy marque Solma lan mooy Solma pourquoi euh, pourquoi Solma euh, ci hip hop lañ la xamee ci woy lañ la xamee je vois que Excidex c'est très content parce que mm. moom dafa dafa il a il a le rap dans le sang mais en plus de hip hop bi dem ba mu yàgg nga dugg ci mode bi pourquoi damay nuy excellent bu baax parce que émission bu ma marqué lañ def man ak moom à 7 FM donc boobu. loolu yàgg na de jamono ñoom Bakkus. exactement voilà. <laughs> ay may mun a bàkk guerre may mun a bàkk guerre. exactement si loolu exercice bi da nga yàgg tamit. waaw yow da nga yàgg ci ay rajo ay affaire télé yii nii. wallaay toujours jamono yu Sow Karim. waaw tout ça Bakkus. ak y avait y avait y avait d' autres gens. ñoom Amis loo Amis DJ Amis. c'est là ah, j'étais hyper fan de lui quoi avec sa belle voix. il faisait une grande émission qui s'appelait Talen Lampi. oh là là oh là là. ñu koy invité aussi xale yi xamuñu yi ñëpp ñu ngi leen invité pour le 12 mars parce que ay grand lañ yoo xamante ni. c'est de grâce naxu sol bi moom mi ngi sax. naxu sol bi oui. il y avait aussi oh là là Aziz Koulibaly Aziz oh là là le gros. oui trop antenne mi ngi waat delluwaat na. il est toujours à la radio. delluwaat oh na si Aziz qu'on a toujours apprécié Aziz Koulibaly Pata oh là là oh ah là là. moi quand je les entendais j'avais envie de devenir animateur oh là là oh. <laughs> tata Ndeye Tata Ndeye vous vous rappelez non ah oui c'était à moo doon def togg yi à la rajo ñoom euh, euh, ñoom dañu ñëw ci période boo xamante ni rajo rajo rajo dafa bees on a parlé yéen yéen au départ sax amu leen woon fit noonu sax làkk wolof euh, ci ci ay rajo rajo et tout ce qui s'ensuit Tata Ndeye Francesca Diafoune ñoom ñoo njëkk am fit di di di di di wax ay wolof ci rajo et bi nit ñi di togg et tout ça ah oui ah oui ah oui ça c'est la belle époque ça. Voilà, donc pour les invités. Bon, hein, euh, Michael Souma aussi. Ouais, ah, ouais, Michael, c'est là. C'est le monument. C'est le vieux père, Michael Souma, génération 3R. Oh là là. Foofu lañu déparé. Oh là là là là là. 3R. Oh là là. Xamuñu. Euh, euh, <laughs> mais mais ah. mais ñoom ñëpp ils vont venir le 12 hein. Gis nga yaa ñu dugal ci nostalgie quoi carrément. <laughs> Voilà, donc c'était une parenthèse quoi. Mais pour dire que ñoom ñëpp ñu ngi leen invité le 12 inchallah. Mm-hmm. Donc di nuyu Mado. Fama ak euh, Bijou Pata. Euh, <laughs> Bijou naka da ko jaawale ak sa Bijou man dama leen baal. <laughs> voilà donc euh, seulement c'est parce que tey boo xoolee ah même ba ci choix wu nom bi choix wu marque bi dañ ci am benn aspect représentatif bu ci nekk quoi mooy que tey seulement baatu olof la. et que ñun ñëpp dañu tàmmoon di importe ay yére mhm. genre di jënd ay yére yoo xamante ni étranger lay jugee mhm. mais man The Reverse laa bëggoon créer. maanaam non la le Reverse yow nag naka bu bëggee ba ma bëgg. dama bëgg <laughs> anglais dama bëgg ngay wax ak man ci li ma dégg. dégg boo ko xamul sax da nga naan américain la. Mm-hmm. non The Reverse maanaam speak wolof. yeah when I can comprendre quand même ah. yeah ok no problem. Ah, yeah. <laughs> donc pour créer la renverse quoi. genre li effet contraire li nga xamante ni moom lañu daan jëlee. bitim réew muy ñëw fii ñu ñu koy jëlee fii di koy yóbbu foofu ñoom ñu koy consommer donc loolu moo tax léegi consommation boobu nga xam te ni ñoom dañu koy consommer ñun dañu jàpp ni suñu objectif mooy que ni sol ma dina dem ba dugg biir Maison Blanche c'est bien bien yow da nga am duggee foofu dinañ ni mais lii baat bi fa sol ma lan lay firi quoi baat bi ban ban lakk la dëgg la mu nekk lakk olof hmm. te bu ñu nee olof dinañu Sénégal bu ñu nee Sénégal dinañu Afrique donc représentation bi ñoon am ci rap bi. c'est bien dañ ko continuer ci hip hop bi. ci mode bi quoi dañ ko continuer ci mode bi quoi. parce que loolu it aussi ci hip hop bi la bokk. exactly streetwear la mooy mooy merchandising donc tey booy xol booy xool euh, li may gën a neex ci sol mooy que ne non seulement bàyyi naa hip hop bi. mais maa ngi ci hip hop bi ba léegi bàyyi naa rap bi quoi genre. parce que tu habilles ñi nekk ci monde hip hop bi. a beaucoup de ci monde hip yëpp modèle yoo xamante ni urbain la bari nañ quoi événement yi ñu ci at bi dafa bëri. te yi mhm. ni ku mel ne Salam Diallo nga xam ne li mu sol sol ma ci at bi mu mu c'est-à-dire mu ëppale artistes yëpp quoi genre il s'est habillé presque pendant toute l'année sol ma spectacle bi yëpp sol ma la sol moo tax ñu jël ko. mu def ak Carlo. ambassadeur ak Carlo xam nga nga xamante ni moom aussi ñu koy nuyu au passage. dina def spec incha allah spectacle bu nice incha allah le 12 mars. Hmm. ak ñeneen ak ñeneen. mais streetwear d'habitude euh, dañ koy xàmmee ci ci même euh, ligne bi. Mhm. yére yi dafay xaw a niroo et te yow chaque année da ngay euh, def défilé créer mhm. créer collection bu bees. Mhm. quelle collection année bi lan moo naa nekk particularité bi par rapport ak l'année dernière. xam nga comme li ñu naan ku ndóbin rey sa man. boo gisee lu ñuul. da ngay fàqi. fàqal suul. voilà xam nga dañu commencé woon daaw. pare guñu sax gars yi pirate wu ñu pirate bu metti waaw pirate bi moom metti woon na gisoo moo tax tey dañu gën a dañu gën a focaliser wu ci li ñuy wax genre série limitée mhm. dañuy defar benn série du sax mat at quoi bu ñu defee 6 mois benn série ñu changé ko demat ci leneen xam nga donc bii am nañ collection bu bees tàq boo xamante ne moom la ñu na représenté ci parce que seulement trois versions la quoi y a la version traditionnelle y a la version classique et la version urban mhm. mooy streetwear bi quoi donc euh, ñett yëpp dinañ présenté mais bi classique bi dootul nekk costume quoi mais day nekk tradi moderne boo xamante ni vraiment c'est bien réfléchi lu ñu xalaat la bu baax a baax a baax a baax. touche sol bi dañ ko nga invité di soog a commencer may leen mm-hmm. chance. pour ñu mën leen gis aussi bon xam nga comme Show benn concept la. concept de de de défilé la quoi. Mm-hmm. c'est-à-dire c'est pas défilé boo xamante ni dañ ciy wane suñuy modèle kese. Mm-hmm. mais dañ ciy défendre ay causes. daaw par exemple on a défendu la cause c'est-à-dire subventionner l'emploi des enfants ci seen dépense quotidienne ah parce que ku ne xam na ne antam boobu moo fa nekk te ay enveloppe yu duun la ñu fa joxee daaw voilà daaw vraiment joxe nañ leen xaalis bu bëri ngeen di kan bon du ñu subventionné mais dañu bëgg a benn mosquée bu nekk au niveau de Pikine très bien parce que man Pikine laa am Pikine laa dëkk fa laay yeewoo donc euh, tey jaadu na man ma apporter sama participation ci développement wu Pikine mm-hmm. te jumaa boobu noonu ay milliers de Pikinois dañu fay jullee mm-hmm. donc euh, bu dee benn 1000 francs ñu ñëw contribuer ko ci te defar defar defar jàkk jàkk boo ci dugalee benn doomu tàndarma sax da ngay am yool fa yàlla ah c'est bien ça donc, ça euh, ça ça moo tax ñi ngi invité ñëpp ñu bokk ci yool boobu noonu ah oui ah oui le jour du 12 mars incha allah. incha allah ñu ngi invité ñëpp ak ban heure la nit ci war a ñëw pour bañ tardé. voilà donc euh, Fun City lañ koy defee euh, vingt heures la ñuy def mise en place. Mhm. genre accueillir nañ ñi placer leen parce que dafa am VIP ak simple. Euh, xam nga bu ñu leen euh, moo nekk ci VDN bi excuse moi. oui ci VDN bi. waaw moo nekk ci VDN bi c'est c'est madame Diallo. c'est madame Diallo voilà ñu ko nuyu passage ak madame Diallo di ku di ku baax aussi. moom il faut que ñu dem def reportage ci moom. parce que bokk na ci Sénégalais yi nga xam ni dañu hmm. nekkoon bitim réew. après ñu gis ni am na lu ñu acquérir. ci hmm. expérience ak hmm. xam-xam ak lu baax lu ñu jëlee euh, ci dëkk tubaab bi. mu ñëw partager ko ak Sénégal. c'est-à-dire depuis qu'elle est là elle a tout essayé. Euh, dugg na ci domaine bu ne pour yokk développement wu réewam. à chaque fois que je la vois je suis fier d'elle xel euh, euh, dëgg la euh, jom mooy tukki fulla mooy ñibbisi mm-hmm. waaye ñibbi sam des ñibbisi itam des koy waajal mm-hmm. on ne demande pas aux gens qui ne sont pas au Sénégal de venir nii mm-hmm. fii parce que mën nga ñëw doo miinaat suñu ay ay jikkoog ñoom seen mais moom préparé na ñëwam ba dellu si waat et bi mu dellu see créé lu mel ni Fun City xale yi fa la ñuy foowee oui c'est pour les enfants voilà voilà c'est sur la VDN et c'est un très bon coin donc madame Diallo encore on félicite on fera un reportage ak Aminata am loo am am loo xam. Mhm. indi ko fii partage ko ak. c'est très important pour mu dellu pour mu yokku donc ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax. donc aussi xam nga euh, événement bi dafa am ñu bëri ñoo xamante ne dañu si jàppale. Ah. et kii ñoo xamante ne depuis daaw ñu ngi ñuy hmm. ku mel ni Daouda Mbow. ay kooku dafa kooku dafa baax. Euh, kooku ni mu pataawee noonu mbaax a ko def noonu. <laughs> dafa pataa. wala dafa dafa pataawul ah pataawul. voilà non nee pataana mais pas trop. mais nit gënu ko moom. Mbow waaw franchement Daouda moom Daouda Mbow de spécial parce que xam nga li li ma gën a neex ci Daouda ah. xam nga Sénégal dañu dañuy jaawale générosité ak baax. Mhm. générosité mooy ku mën a maye xaalis ku mën a maye ay yére ku mën a maye ay lekk ak yooyu pour man loolu mooy générosité quoi partagé mais mbaax ci xool la moom ñaar def la boole mooy koo xamante ni dalay xool nga ne ci ah. yoon mu ñëw jàppale dalay wàcce léegi waaw aide la soutenir la quoi. xam nga Aziz Ndiaye aussi xam na noonu la jàppee ci. Malamine Fatim Bakary deuxième édition bi quoi. Mm. honnêtement quoi franchement ku baax la moom it na ci bu baax a baax naa poosam sax waaye. voilà bari na ay bari na quoi xam nga bari na ay gars am te ne vraiment ñu ngi soutenir. on sait jamais financièrement ngi soutenir sur le plan moral. c'est bien. xam nga su ma idole nga xamante ne référence ci man. Mhm. muy Yaxya Diop Yékini. Mhm. Euh, daf may woo heure bu ne. dèjà del waxee nii del doxee nii. defal lii moom dafa baax. xam nga nekk nit ku spécial ci man quoi Yaxya Jóob Yékini franchement ko ba démb rek moo ci mujj dafa voyagé woon démb la ñibbisi pour l' événement mais dafa ñibbisi rek woo ma ni ma xam ma dama bougé woon mais maa ngi ci Dakar xam nga donc franchement après nañ gisee ñu waxtaan xool nag dañuy améliorer donc yëkki ni chapeau quoi dèjà dèjà dèjà dèjà dèjà dèjà fi nga xam ne ni moo di euh, Fun City euh, yaa numéro de téléphone parce que modèle yi ngay defar ñu bëri man damay sol solma mm-hmm. Fama day solma Bijou dafay solma Alpha day solma Mado dafay seulement mhm. Exidex day seulement oui tu as tu as un la particularité bu mu def mooy mhm. euh, mettre aussi en valeur les femmes fortes oui. Mhm. c'est un style très original mais problème bi tout le temps femmes fortes yi di am dañuy gis day rafet te ñoom dañu que de pataa na pataa boo xamante ni kay animé ca télé ba biisu pataa xaw moom dijj na dijj boo xamante ni mais su ma gisee lu muy sol damay xam ni lii sol na sol ma la ngi toll ni mbana parce que dafa benn dafa benn concept bu bees <laughs> non c'est pas pire sax maa ko tuddee bijou patin en fait <laughs> non Mado na solo bul. Ah. mais dina sol parce que moom moo njëkk a def reportage ci marque bi. waaw moo njëkk a def reportage ci marque bi. c'est bien te jig nañu quoi. c'est bien en tout cas ñun on est très content on te félicite. Euh, télévision Futurs Médias mu ngi sa ginnaaw. Euh, il faut rappeler aussi que ay stars dañuy défiler. Euh, incha allah je vais défiler mooy loolu mooy particularité défilé bi. cest en dehors des de fait des euh, mannequins professionnels comme ñoom Alfie ay ñoom Fama Thioune dafa am demee défilé boo xamante ni défilé des célébrités la quoi ah. donc Aziz Ndiaye dina défilé Matar Diop dina défilé Mado dina définir. waaw de inscrire naa. ma ci génnee ma doon la ba nga dee. Ah. ci défilé Bijou. voilà voilà donc donc donc. Bijou la tudd. <laughs> koo xamante ne daf ma daf ma jàppale bu baax ci bés bi. Mm-hmm. mi ngi ba Londres. Mm-hmm. xam nga ko. Mm-hmm. xam nga muy Bijou. Bijou sol ma sax laa fi tuddee léegi. Bijou. xam nga. Euh, euh, dafa jàpp ci. non mais c'est extraordinaire ah oui am na am na parce que solma dañu am ñaari solma léegi dañu am solma local hmm. am solma international donc moom moo représenté marque bi sur le plan international c'est waa Paris waa États-Unis waa Londres

sumay suma doole. Mhm. Mankar Faaji. Mhm. Kàbb. voilà ma leen fay. xam Faaji surtout Faaji. surtout Faaji nga xam te ne c'est mon c'est mon jumeau. Matar Diop aussi chaque jour mu taal otom nekk ak man ci dafa bëri quoi dafa bëri nga xam te ne dañ koy def volontairement ak suma mm-hmm. fan club aussi nga xam te ne mm-hmm. bu Salma accès fii nii. Mm-hmm. bu événement amee dañuy bàyyi ñoom seen profil yi jël. événement bi def ko seen profil. di ci dox di ci wax. ngir ki amul lu dul ki ko mën a jàppale mais mention spéciale à Pape Cheikh Diallo. non man ci laa bokk man moom. <laughs> man moom c'est c'est c'est en tout cas. Euh, euh, ñun lu ñu xas ba ni baax na rek baax na. voilà et que dinañ la gunge ci événement bi. donc rendez-vous le le 12. Mame Siré Konaté que nous embrassons. Euh, bu fekkee réservation yi ak mhm. boo bëggee commander une belle tenue. avant comme ça ñu defaral loxo nga mun ko sol. ñëw bokk ak collection bi. mouvance bi wala couleur bi mën nga wootee ci 77 414 18 10 418 14 14 xam nga mais Pape juste une partie bi 418 14 14 première partie bi uh-huh. dañuy sargal sama yaay mm-hmm. dañuy sargal sama yaay mm-hmm. dañ koy rendre hommage au fait mm-hmm. euh, parce que amul benn doom kese muy man donc mënuma def dara di ko fàtte. mu teel a dem ndeysaan. voilà donc di ko ñaanal yàlla. waaye bu dellu si waatoon doo defaraat sa toogaay di am nga jom. voilà hmm? donc euh, di ko ñaanal bu baax. Hmm? di ñaanal suma tata Sodo Dramé. Hmm? di ñaanal suma frère Jibi. di ñaanal Pape Fadji ak El Hadj Mar Faye nga xamante ne ñoom ñëpp tey ak sama maam bi nga xamante ne moom moo yar.

mënu woon sax ñëw mais dafa def déplacement ñëw toog ba défilé bi jeex muy maman Khady Fall mhm. maman Déguène Chimère nga xamante ni yàgg na ma tete ci yoon bi nga xamante ni ci laa nekk nii suma mhm. yaay yëpp quoi mhm. mënuma lim parce que xas naa dugg ci voilà mais sama yaay yëpp maa leen invité ci première partie bi nga xamante ne dama nar a sargal seen xarit bi nga xamante ne moo mu jur. Mhm. te tey mhm. nekkatu quoi pour ñu teewee hommage boobu. merci kontaan nañu euh, Ndiga Dia donc rendez-vous samedi bu soobee yàlla. Fun City merci d'être passé nous voir kontaan nañu 9h40 euh, mooy euh, doog jot ñu ngi leen di ñaanal encore bëccëg bu neex ci télévision future Média 10h mois 20 donc restez avec nous xam naa ni yéen ngi ci ndekki li bisous on parle des people maintenant. people d'ici et people d'ailleurs. combat pare na wala pare wul oui mais bu parewul c'est pas grave on peut en parler vite fait là euh, pour ñu xam un peu les autres ce qu'ils font Kim euh, Kardashian on Kim Kardashian actuellement mi ngi mi ngi mi ngi toj internet bi ak ay photos de nu parce que il y a deux jours elle avait posté benn selfie boo xamante ne benn bande noire la def fii ak ci suuf. elle a préféré garder l'anonymat l'anonymat voilà pour cacher l'essentiel disons euh, mais ça a été fortement critiqué notamment par les euh, stars benn star di koy bindal message ne Kim Kardashian fekkee dafa bëgg ñu gis loo xamante ne mosuñu ko gis ci yaramam il va falloir que mu wan na appareil photo bi ndax léppam gis nañ ko ba pare. <laughs> voilà c'est fort. Ouais. et euh, rien à mettre quoi. rien amul lu mu sol moo tax mu. c'est important quoi. mu selfie noonu. bon après c'est leur monde seen ay délire la. c'est ça en fait seen aada loolu la seen cosaan loolu la seen culture loolu la seen dëkk leen loolu la ci loolu la ñuy dox. c'est ça parce que mais mais bu dee seen aada ça choque pas d'habitude. tu sais yooyu yooyu fa am doo ko mës a gis fii Sénégal quoi xam nga donc forcément ça. fii moom xalaatuñ ko bëgg bëgg bëgg wax fii moom xalaatuñ ko. mais même chez eux ça choque parce que ñëpp dañuy dañuy critiquer. et pour euh, mu ne ko dama dama. dama foogoon ne ci sama vrai xarit yi nga bokk parce que yàgg nga ma may ay cadeau pour approcher ma la ko tontu. Euh, journée de la femme elle a posté beneen photo d'elle nue xam naa ni peut-être que li mu récupéré forme am après accouchement bi moo tax muy wane et elle a mis qu'elle libre donc beneen xale boo xamante ne actrice la euh, postel ko ne ko je pense que jigéen ñi am na leneen lu gën a important lu ñu war a wane lu dul seen yaramu neen ah. mu tontu ko ne accueillir leen ko sur ndax kii kenn xamul kan la. voilà et nous par mesure de sécurité euh, et de prévention routière euh, mënuñu leen wan. Euh, photo waa waaw waaw voilà. vous pouvez taper sur son Instagram am bu ngeen demee Kim Kardashian di ngeen gis photo yi leen di wan yëpp. mais mënuñu leen ko. pour plus de conscience tranquille et de. Ouais. <laughs> de prévision météo. <laughs> météorologique. <laughs> am sensible. pour plus de rendement pour plus de rendement économique et de prévision météorologique et de prévention routière on ne pourra pas vous montrer ces photos nues de Kim Kardashian malheureusement mais c'est sur euh, euh, euh comme elle dit Bijou Twitter voilà c'est ça Allez, on quitte, on quitte. Euh, de j'aime, ceux qui me mettent. cette famille pour parler d'une autre célébrité. D'une autre. Deux j'aime lay am. Ouais, c'est pas bien. <laughs> <laughs> oui euh, vas-y ci bi. on va parler de benn petite boo xamante ne bi ñu ko découvrir euh, yàggul ci benn way with my hair. actuellement dafa màgg changer complètement gën et pour ça waa Chanel. dañ ko jël def ko égérie il s'agit de Willow Smith doomu Will Smith parce que nee nañ ah. dafa am euh, elle est là elle est juste magnifique elle a tombé elle elle a grandi et que on dit que dafa am pédigré boo doomu Will Smith ak ah, Willow elle a la pédigré boo xam ne c'est c'est c'est in c'est quoi mm. maanaam euh, juddoo daa ah, baax tàgg la pédigreem ndax papaam ak yaayam ay star lañ ok ok elle est automatiquement star elle est fine elle est grande elle a les cheveux voilà est juste magnifique et euh, elle n'était pas nekkul woon ci série boobu ah, voilà voilà musul nekk ci benn série je sais pas trop ah je demande je je sais pas je reconnais ah, d'accord elle elle avait fait une vidéo plus voilà mais bàyyi Karate Kids waay c'est son c'est son frère mm. man de boobu temps dama doon woy yaay booy. papa dama bëgg a jàngi. non mais ça fait pas longtemps en fait. yaay booy dama bëgg a jàngi. c'est après yaay booy dama bëgg a jàngi fooyekaay yaay booy. <laughs> c'est ce que je regardais. dem seeti maam mais mais mais elle a grandi quoi la fille. a grandi égérie Chanel pour dire que c'est nous dans nous comme Alphine mu koy waxee. et puis euh, bu ñuy laaj Karla Gafaye bi ñu gis ci photo Chanel doon na d'accord ak ay choix am il dit carrément non elle aurait détesté mais il faut évoluer son temps moom li ko intéressé mooy personnage yi nga xam ne c'est des personnages atypiques et surtout rebelles parce que Willow lu ko neex mm. on parle d'une autre star. de son papa qui va sortir un Will Smith ci cinéma lañ ko xam si si cinéma da doon rap avant là il va sortir son cinquième album il est en studio la la la la la la la la la Isibiri Beda Isibiri Beda Isibiri Beda y a y a y a un autre titre que waaw waaw y a y avait y avait beneen aussi bi def non am na beneen aussi bu nekk sama bopp mais j'ai eh, eh, eh, am na beneen euh, Men in Black is Black tak tak is mini sanya sérieux en plus ah. Black tak tak Ozzy mini sanya Black tak tak Osimini l'instant. Ah ouais, tu te rappelles hein? Ah il a il tellement cartonné euh, euh, avec le rap, le presse de Bel aussi, ça a fait plaisir à beaucoup de Sénégalais. on, on, on le temps. Ah oui, c'était c'était c'est vrai. Merci Exadex. Oui, on parle de notre people. Avec euh, les films, donc on attend que cet album cartonne aussi. Aïcha Koné tam dafay génne ah, album. xale xamuñu ah. jogo baba ba ya jogo ba jogo baba ya jogo ba ya jogo ba huni hunu hunu huni jogo baba ya jogo ba ani ngene ra jogo ba Oui, elle est très, elle, elle, elle, effectivement, elle est très, elle est très, elle est mm. Mm. Eh, eh, war na ko xam parce que Kumba Gawlo indi woon na Aïcha connaît et tout le monde connaît le lien entre Kumba ak Fama Thioune. Mm-hmm. affaire de belle famille. voilà <laughs> donc forcément bi fi Kumba Gawlo indee Aïcha connaît Fama Thioune moo doon. toppatoo Aïcha. très bien donc forcément elle doit connaître. Aïcha. tout le Sénégal connaît Aïcha. Aïcha connaît voilà. donc elle va sortir un album elle aussi donc ñoo ngi koy xaar ak impatience. Euh, wax ci après mag la léegi moom connaît comment elle cartonnait à l'époque est-ce qu'elle cartonne comme Toujours? pas de toute façon. après ay monument après. je pense que ouais ci monde musique. Calamona artistique après dès que tu sors. Calamona ñoom ñëpp Naya Kabel Naya Kabel Monique Seka Monique Seka ñooñu. au cas ma dudu au cas ma yembe au cas ma dudu au cas ma yembe. comment. je parle de people. Oh, come and you a tellement fait plaisir. Oui, mais. samay takk ba ma gaañu non maa ah, a chanté aussi.

non toogal arrêté euh, uh-huh. na ci ñi doon andi artistes que temps yii Côte d'Ivoire la nekkoon donc. artistes yi nekkul je te raconte et Samb càmmiñu Aïcha Koné voilà c'est euh, tout le monde adore elle a même été chantée par Ami Koita. Si. Ah, oui, Amiko est un royaume. Nous, on l'adore. Ah, oui. Nous, nous, nous, on l'adore. On l'adore aussi. Et on attend l'album avec impatience. wax ci kenn koo xamante ne dafa décédé Bobby Christina ak euh, yaayam donc Whitney Houston. yaayam moo woyoon. Oui, et, et elle est, elle est, elle est, elle est décédée, elle est décédée depuis bi mu décédé 28 juillet dañ doon xool pas cette année de l'année dernière dañ doon xool lan moo ko rey. donc defaloon nañ ko benn autopsie et finalement on s'est rendu compte que dafa def mélange de drogue de médicaments d'alcool. elle s'est suicidée. et elle s'est noyée. et les gens disent que am na ñuy wax que dafa xaaru parce que dafa xuloo woon ak copain bi mais on ne sait pas. enquête bee ngi dem ba léegi malheureusement elle est décédée. presque un peu un, comme sa mère. voilà voilà un peu comme sa mère et presque une année après sa mère. voilà d'accord et, et on finit ak Amel Bent. parce que y a y a quelque temps daf doon afficher baby bump. ne retiens pas tes larmes. noppi na. tu vas finir avec un plateau vide. ok. <laughs> donc daf doon génnee baby bump di wane que elle est enceinte def benn photo selfie posté ko ci Instagram am ñëpp di ko aimé elle a accouché le 29 février dernier et pourquoi on parle d'elle parce qu'elle est complète dafa dafa métamorphosé wu complètement comme si elle avait accouché il a de cela six mois la c'était la photo du baby bump mun nañ indi photo bu bees bi métamorphose complète, donc complètement changée. Oh Elle a eu une fille. C'est l'information que tu voulais que je passe. Félicitations. Puisque tu es devenue. Ne retiens pas tes larmes. Oh, laisse ton corps s'en aller. Si tu as de la paix. Souviens-toi que je t'aime, je serai jamais loin. Ne retiens pas tes larmes. Est-ce que xam ngeen ne man dinaa dem The Voice. <laughs> bon euh, bàyyi nañ ma bàyyi nañ ma man kese ci plateau bi c'est dommage euh, c'est pas grave heureusement j'ai un ami qui ne me laisse jamais. c'est quelqu'un boo xamante ni non seulement sama classe de guerre la. mais ñun ñaar ñu doon defandoo pied de grue entre Triangle Sud ak 58 boulevard de la République notre plus grand rêve il y a de cela 15 ou presque 20 moo nekkoon nekk de grands journalistes ou présentateurs télé ou animateur radio on était plusieurs moi j'étais dans une émission qui s'appelait la télé est à nous elle était euh, dans jotaayu xale yi quelques années plus tard nous faisons partie des meilleurs li ma wax na loolu noonu la may xoolee di xoolu <laughs> ça va yaa ngi yaa ngi yaa ngi pàttal farox de mais li ma wax dëgg la ah. <laughs> mais mais mais mais revue de presse bi xanaa di ngeen ko def. s'il vous ok. waxal jërë ngeen jëf wax leen fii ci man wax leen fii ci man. wax leen fii. jërë ngeen jëf. ay eh, ci ubbi leen observateur. <laughs> tuuti man yow eh, yow laa sentir. Eh, may leen ma tuuti. man yow laa sentir. may leen ma ñamal leen ma tuuti rek. <laughs> ñamal ñamal leen ma tuuti rek ñamal leen ma tuuti rek moo wax tuuti ah mais leen ma wax tuuti rek mais leen ma wax mais leen ma wax tuuti rek ok d'accord mm. Mohamed na nga def Mohamed maa ngi nii rek maa ngi woon kër man maa la sant yow yaay xarit loolu yàlla dogal na ko gis nga bu la keneen jëlee sax man maay sa xarit gis nga loolu yàlla dogal na ko waaw mais ci loolu Mohamed ma bu baax la nga def ma ay sant bu baax ah. voilà jeex naa voilà jërë ngeen jëf ubbil observateur Pape na ne ngàpp ma ngoog leer na Macky déroute wadd maanaam ci gàttal li yéenekaay bi bëgg a wax fii moo di Abdoulaye Wade ak pexe yi nga xamante ne ji tegoon na ko Macky Sall ñëw na daal di koy jàdduloo ndax dañ doon préparer ne élection présidentielle yi ñoom ñëpp dañoo jàppoon ne 2017 lay doon waaye seeni calcul nax na leen ndax Macky Sall def na ko 2019 yéenekaay bi nañu ginnaaw loolee ba mu amee nag Abdoulaye Wade euh, faw mu xolaat aw doxalinam ba tey l'observateur ak ni mu ñu ko xëy xibaaree moo di secrétaire général bu euh, parti démocratique faaw dafay xoolaat ay plan mo nee am na ñetti at yoo xamante ne ji gars dinañ ko dox ci wàllu politique mais dafa mel ne ci làmbatu la ñuy dox leneen loolu it observateur xëy nañu ko xibaar moo di moom Abdoulaye Wade ñi ngi wax ak ñëwaatam fii ci Ndakaaru ngir waajal yëf yi ànd ak gaayam yi ngir ñu mën a jàmmaarloo ak Macky Sall doom ja di Karim Wade moom mi ngi ci enquête yéene kaay moom la journal bi xëyee Karim Wade ak li ñu koy toppee di teranga teg na loxo lu toll ci fukki milliards ak ñett yoo xamante ne ji Karim Wade ko moom yoo xamante ne ji moo ko nga xam ne mooy agent judiciaire de l'État di Antoine Diome xam ne ne ñaar fukki compte bancaire ak ñeent yoo xamante ne ji dañu leen a ca Monaco réew milliards ak juróom-ñaar eh, ci France Karim Wade moo ko moom ci mbirum traque des biens mal acquis le quotidien nañu li nguur gi teg loxo ci terangay Karim ëpp na loolee fukki milliards ak juróom-ñaar yu teg juróom benn téeméeri million la maître William Bourdon bokk ci avocat yi Sénégal ci wàllu teraanga le populaire xëy ci dellu siwaat ak lu aju ci nguurug Sénégal ak li mu jàpp ci Karim Wade bokk na ci ñaari euh, société ak juróom-benn appartement yu nekk fii ci Ndakaaru ñaar fukki compte bancaire ak ñeent am na benn appartement bu nekk ci seizième arrondissement ca Paris yéen a kaay bi nañu nguur gi jamono ji mi ngi koy bàyyi xel mi ngi koy teg soog kii jiite nguurug Sénégal di Macky Sall mi ngi ci Walf Fadjri wàllu politique li yéen a kaay bi di waxtaane référendum yi 20 mars yi jàmmaar lool bokk na ci ñu àndaan ak moom ci législative yi ci gile yoon ñu wan ko ndodd maanaam du ñu wëy loolee lépp li yéene kaay bi di wal fajri xëy jàngat ngir leeral ñu ko la tribune moom gisee neneen mu di Macky ak li mu waxoon ne dina wàññi ku jëg yi ba lu dul tuur duñu ko dese loolee ca la nekk euh, silence Macky démantel ngi jël buum yeew ci ñoom Idrissa Seck ak ñoom Moustapha Niasse ak ñoom Payteg yépp jàpp te naan maa ngi dem marché le ko la tribune xëy nataale ab gorom moom Macky Sall di Omer Abdourahmane Seck moo xëy amee mu njëkku la euh, daanaka dafaa xëy di defante noonu la ko yéene kaay bi euh, waxee le beau père du Macky Sall règle ses comptes lu bëri wax na ko mais ki mu gën a wax jëmee nag moo di ci Omar Gueye ndax nee na Omar Gueye liggéeyalul euh, njiital APR ci diwaanu Tëngéej daanaka lam fay def yoon la ñu laaj ko ko ne Idrissa Seck ngi nii saa yu nekk muy jóg di dal ci kaw Macky Sall Omar Gueye ne tekk kenn dégg ko ci noppeem googee Omer nañu luusa nga ca mbir la moom war nañ koo lijjanti mu ne nag ñu bëgg ko ñu bañ ko responsable morale bu euh, personne morale bu APR ca Tëngéej moom la kenn ki di Khalifa Sall moom la las xëyee moom xalifa Sall moomee ndax dañuy dagg boppam moom ñi mu àndal maanaam ci gàttal ndax dañuy teg seen kaw ay daan journal bi moo ko xëy di laaj ne secrétariat exécutif national extraordinaire bu parti socialiste tey jii la Ousmane Tanor Dieng moo ko convoqué danañ fa jëli dogal jëmee euh, ci li xewoon fële ca maison du parti keroog euh, samedi yéenekaay bi daat koy waxee noonee populaire xëy ci dellu mais moom leneen la ñu xibaar moo di gannaaw fitna jawoon ca maison du parti euh, ñenn ci jegeñaale Khalifa Sall yi woolu nañu leen ca division investigation criminelle pap ñu ngi lee gërëm bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, mu nekkoon euh, revue de presse bi ñu ñëw nag euh, jeexal parti bi bàyyi leen ak Kebs Thiam ajaratu Kebs Thiam non mais il faut mu nekk sama seexu Mbàkke imagine ngeen man ak Kebs ànd Makka. loolu dina réer ñu ñu ñibbi si keps war war a war a war a muuru buy def émission man ma war a def sama sama simis àllaaji loolu dëkk bi dina yëngu de <laughs> bu koy woowee Adja keps yaayu béteeg Marianne balaa ñu leen di bàyyi ak moom pour wallaay wallaay wallaay ndeysaan àllaaji seex ba ma naan leen kuy ziar da ngay jege kon de sama ngan moom dina neex dana <laughs> léegi jeeg yëpp damay bëgg ñu rang waaw waaw man leen ay ca kuy ziar da ngay jege kuy ziar da ngay jege da jege kuy ziar da jege waaw bëgg naa itam ngeen woyal ma sama woy wa alaaji noo sànne jam ra cami nam man leen damaa sëgg siggi noonu laa sànne jam ra cami nam kenn musul damaa noonu laa sànne jam ra cami nam non je te jure ah barki Serigne Bamba yàlla nañ dem màkk ren waaye ah, fu may dem yàlla naa ànd ak keps comme ça ñu bàyyi leen fi bu ñu demee woo leen ngeen ñëw comme si daat dem na daaw te dégg naa woo na ma ak oto maay bi ne ma gis nga dof ma ma bay ma ma voilà donc ajaratu keps ngeen di ñëw ànd léegi yaayu béteeg Marianne pour permanence en attendant ñu tàggoo merci Exidex tu te sens pas trop bien mais euh, yaa ngi jox rendez-vous téléspectateurs yi tey ci guddi euh, pour seetu bi spécial interdit au moins de 18 ans you and my amour Ndey Ndak Ndey Ndak tey ci guddi à partir de Ndey Ndak xam sama lifin la sama sama sama cape la ah, ah, sama cape cape cape sama cape la sama cape cepe. Eh, cepe laa xam ah mais cepe nee na daf may corriger dafa jar a corriger. <laughs> xaay suma suma suma suma suma laxaas la waaw suma suma suma wala sunu laxas la. ah non sunu kat man sa laxas la yow. <laughs> donc tey ci guddi tey ci guddi di nga ànd di nga nekk ak suma ak suma cappe bi. ak sa ak sa cappe. Ah. danaa nekk à partir de minute suma lifi bi fas yéene waaw rek fas yéene euh, interview moo di dix huit ans. waxtaan suñu biir c'est nous dans nous on rigole on s'amuse mm-hmm. et on se dit tout. Ouais. voilà donc, donc rendez-vous tey ci guddi et puis on remercie maam Cheikh mi lay ñëwal ba keroog ngay sangu suuf. waaw maam Cheikh moom it maa koy gërëm ba keroog maa sangu suuf moom it. wallaay wallaay ceeb chaque jour de baaxul moom. ah ceeb chaque jour. amul problème na ma bëri bëri. voilà kese. merci Ndeye Malle euh, madoo euh, Mado Mado Ndiaye ñu ngi lay gërëm yow tamit bu baax rendez-vous demain bu soobee yàlla. waaw rendez-vous demain bu soobee yàlla ànd nag ak ki nga xamante ne moom moo di Fatou Faye ñu waxaat ci moom xool parcours am mais di remercier bu baax daba aaj borom Doro be fashion nekk ci Liberté 6. extension ndax moom moo jàpp ci lépp ak waa Glam Style Baye Mado. ci make bi. la dernière fois j'ai euh, vu j'ai vu j'ai vu O poster une. belle photo. Ouais. Elle a été maquillée par. Glam Style by by by, Mado. wala mm mm-hmm. euh, ak Mado ñun ñaar <laughs> ak Mado. voilà c'est Baye Baye Mado. Euh, si vous avez envie de maquillage allez voir maquillage maquillage. sigi digi digi digi de maquillage caw ko de day tege de maquillage. rugu rugu rugu rugu rugu. maquillage maquillage. merci Mado. allez Fama Thioune Seck dégg naa da ngay dem ay jàng jeudi vendredi <laughs> samedi. ñetti fan jàng oui jàng suñu suñu kilifa la. di Alaaji Ahmed Khalifa Niass oui nit ku baax. Uh-huh. donc Kaolack lañ ko daan defee waaye bi pa dañ ko première partie sa muuraayu seytaane yi bu ko def de ah dinaa muuru dinaa tagalu dinaa defar ba mu baax moom de façon xam nga ay waxtaanam dafay neex nit dañ koy defee palem bi juste en face école bi mu jàkkaarloo foofu lañ koy defee muy vendredi samedi euh, jeudi vendredi samedi inchallah donc lañ fa nekk ci suñu kër di sàngal Papa Ahmed Ahmed Khalifa Niass voilà et parce que da nga am livre boo xamante ni mu ngi la naan dàmpa la dàmpee xol J'adore ce poème. Bon, merci a Evish Moda. Evish Moda. Evish Moda, 77 236 57 55 Victoria Merci. Merci beaucoup. Merci. boo jaawalee di jaawale ba jaawaloo nga xam ne lii du neen ci livre donc merci beaucoup merci beaucoup à ma mère Abi pour euh, Abima bi donc numéro 77 344 39 43 et pour la tête c'est Awa Ndao Latifa 77 967 79 62 merci à demain voilà et tey la anniversaire koo xamante ni dafa bokk ci yeewu leen tu sais y a des inconditionnels yoo xamante ni dañ ci bokk ku mel ni mm. euh, ndeysaan uyu dof bi nee man lay filmer moo tax li ngeen di gis ci man tey dara baaxu ci Alfi moom mooy cadre depuis ce matin mais je vous rappelle juste ni Mami Sobel dafa bokk ci yeewu leen mais am na keneen koo xam ne daf ci bokk elle vit Paris et la anniversaire am Feuz Galsen. Ah va chanter on va chanter pour elle. on va chanter pour Feuz Galsen anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Feuz anniversaire beaucoup de bonheur pour elle donc Feuz oui on l'aime comme ça on l'aime comme ça voilà nous on l'aime comme ça oui qu'est-ce que tu voulais dire doo bàyyi suñu anniversaire ñu enjoy ko tuuti nga bëgg ko euh, jàll ci beneen. benn ci anniversaire waaw d'accord donc joyeux anniversaire à Thiané. voilà c'est un bébé à vive le mois des femmes. yow taxawal yàgg sa kaas. bon semaine prochaine dama ay anniversaire de. d'accord léegi man ak Alphie ñu ngi leen di jox rendez dans quelques minutes juste après permanence ñu ànd ci ak Adjaratou Kebs Thiam.